ñaar fukki million ak ñaar yu tegal téeméer ak ñeent fukki junni mairie bu Touba jàppale na ko askan wi yeewoo ci dëkk bu sell bi ngir waa waajal tabaski atum 2024 bi ñu nekk. ci weeru juin monsieur le maire ab laatka dikkaat na ci niñ ko séddalee. ci ni ñu ko baaxoo defee at mu nekk bu bis yu mel nii ñëwee muy bisu lu mel ni suñu bis bi nga xam ne amuñu bu ko gën a rëy muy màggal ak Touba muy bisu tabaski. muy bisu tamxarit ci jëm bis yooyu nga xam ne dañuy fiy faral di génne ay ndimbal di ko jox ñi nga xam ne aajo woon nañ ko te suñ borom nattoo leen ñu yor ak njaboot te lu bari war leen te jamono bi am num mele ci ñenn ñi loolu moo taxoon nag ci dëkk bi di dëkku yërmande di dëkku taalibe di dëkku sëriñ bi di dëkku social loolu moo taxoon bi ñu waxtaanee ci bureau municipal ak conseil bi ñu wate woon nag ci social loo xam ne dañ ko koo cërale loolu nag ci commission social ak CEPRES euh, bi nga xam ne moo nekk fii ce gouvernement bi teg ko fi ci ndigalal ministère bi l'intérieur ndigalal gouverneur de la région préfet de Mbacké su préfet de Ndam ñu ànd ko ak ñoom ak commission social bi ñi nga xam ne dañ koo aajowoo te di ko déposé ay ndimbal ci façon bu nekk moo xam ñi nga xam ne suñ borom dafa dogal ñu am ñetti doom moo xam ñi nga xam ne dañoo am ñaari doom te yàlla dogal dogalut ñu mën seen bopp niñ ko niñ ko bëggee ak ñi nga xam ne dañoo wére di nekk hôpital te am ay jafe-jafe ci ay analyse ak rajo ak ordinance ak ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe njaboot ci seen biiri ñooñu kenn ku ci nekk boo am na fooy déposé sa sa dossier ñooña traité ko indi ko ci commune bi bu ñëwee ñu jox ko buñ ko dajalee nag ba jamono yu mel nii tabaski di jub wala màggal di jub wala leneen di jub ñu jox ko commission sociale commission sociale bi saytu ko ànd ak siise mi nga xam ne moo fi nekk di CPRS bi ak ñi mu ko war a ànd ñëpp saytu ko ñi nga xam ne yelloo nañ ko ñu yëkkati ko kenn ku ci nekk ñu seet la nga xam ne moom nga ci mën a am ñu ñu ñu ñu ñu def montant boobu euh, bu ñu ko boolee nag bi ñu boolee lépp nag ba nëgën yi génne nañ ci keesu budget maire bi vingt-deux millions sept cent mille yoo xam ne moom lañ leen bëgg a séddale. lu toll ci juróom benn téeméeri doomu aadama ak juróom ñett fu ak juróom de ay boroomi kër yoo xam ne yittewoon nañ ko lool ñooñu nag. bokk na ci nag ay imaam yu nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba ak ñeneen ñoo xam ne rek aajo woon nañu ko. loolu nag bénéficiaires yi nga xam ne ñoo ko moom muy ñi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ñoo ko seq nekk na juróom téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom yoo xam ne ñoo ko seq juróom 685 personnes ñoom la ñuy séddale 22 millions 730 mille yi mooy montant bi nga xam ne moom la ñu génnee ci tabaski gi. muy commune Touba ci dogalab bureau municipal bi ci dogalab conseil municipal bi ñu génne ko war koo jox seeni borom génne bi nag aw ak joxe win wi saytu nañ ko ñi jox nañ ko ñu maandu ñoo xam ne yaakaar nañ ni ci àddina duñ ci fayu duñ ci leble duñ ci fay bor danañ sàmmante ak ak sunu borom tabaaraka wa ndax séddale ak atte dafa dafa laaj maandu def saytu nañ ko teg nañ ko loxol ñoo xam ne yaakaar naa ne li liñ ci war a sàmmante lépp sàmmante nañ ak moom ba woo nañ tey mbooloo mi ñu ñëw ñu war leen a jox kenn ku nekk li nga ci am nga mën a dem toppatoo ci sa njaboot loolu daal defe naa ne mooy li nga xam ne mooy daje bi tey ñi woo nañ leen du neex dara nag ñu exposé leen kenn ku ci nekk ñu di ko identifier ndax nit dafa bëgg sutura waaye mbooloo mépp a ngi nii waaye maa ngi ñaan rek xar-xaram yi ñu bañ koo identifier ndax da réew mi day réewam sutura réew mi di réewam secret nit te nit bari na lu buy am day am bëgg am ci sutura buy ñàkkit bëgg ñàkk ci sutura mbooloo maa ngi fi dañ leen di woo ñu ñëw kenn ku ci nekk signé ñu jox la li nga xam ne moom nga ci am waaye nag mu ànd ak sutura mu ànd ak wormaal leen ndax doomu aadama dafa bëgg sutura. ndax dañoo bëggoon sax bu ñu ko engagé ñoom ñëpp ñu dem Tresol waaye payeur bi ne nañ ko jël indi ko fii ànd ak waa Tresol mu toog waa Tresol day toog maire bi toog mu xaddimaatul xidma toog ay nit lañu tànn daal yoo xam ne nit nag bu doyee ci jumaa ji doy la ci bàq ya maanaam bu la boo ko séddalooyee yaakaar nga ne ci maandu lay dox. looloo tax ñu boole leen ak conseil municipal bi Serigne Abdou Assis mi nga xam ne mooy premier adjoint bi jiitu ko ak mboolem président commission sociale bi. mboolem imam yi nga xam ne téeméeri imam yi nga xam ne ak ñeent fukk ak juróom-benn yi nga xam ne ñooy julli it ci dëkk bi téeméer yi ak ñaar fukk ak juróom yëpp danañu fa dem siyaare leen ndokkeel leen maanaam ñaan leen ñu ñaana réew mi jàmm tey ñaa ñaax xale yi. ñu ñu ñu ñu ñu ñu tegu ci aw yoon te dal ndax loolu dana indi jàmm ci cim réew ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa noonu mu ko defee woon daaw def ko at yi nga xamante ni moom la ñu génn at mu jot itam noonu rek la ko fas yéenee wéyale ngir bépp xew-xew boo xamante ni.